mbokki amateurs yi dañ leen di nuyu rek wala mbokki internautes yi tey ni ngeen ko xamee dimanche la tombé 28 avril Pape Abdou Fall moo ñu fi wax ci combat boo xam ne ñii dañ na xaj na Iba Mar Diop ñii na xaju fi muy diggante kan Garga Mbossé rakku sos Garga Mbossé actuellement bu la neexee sax nga ne mooy tête mooy tête de file dóoraat ñu war ko booleeg kan Moussa Ndoye bu yaraax loolu nag. li ci am ba des mooy est-ce que combat bi xaj na fi nit ñi moom ñu ngi ñëw mais dañuy dugg ci biir bu ñu duggee dinañ leen xool stade bi ngeen gis ci Leewtoo TV ndax combat bi xaj na fii wala déet waaye loo ci mën a dégg daal jàppal ne Pape Abdou Fall moom président tey defati na mbir andi na bés bu rëy a rëy ñaari mbër yu soxlante woon Garga Mbossé borom PA Moussa Ndoye borom yaraax waaye Babacar ci kaddu gi Talla Ndiaye moo koy film di ko dagg te di ko monté taal dañuy dugg ci biir xool bagage yu sew sewaan yi du mën a ñàkk ci Leewtoo TV lay Talla Ndiaye tey gis nga organisation bi parfaite Adja Ndeye Ndiaye bëgg nañ la waaw waa fii la ëppee maa leen di ziar bu baax a baax euh, tey da yaa ngi ñëw def sa lakos yor sa rajo bokk ci organisation bi waaw mais c'est normal xam nga man maay seen jigéen c'est normal ñu ñëw jàpp si liggéey bi waaw la moo tax ñu gëj laa gis si làmb ji waaw waaw dama nekkoon si yeneen liggéey nag waaw dama nekkoon si yeneen liggéey <laughs> taa yi kon ren di nga tëgg wala waaw ñooyu xool na xam nga ren moom dafa xaw a xat ak euh, match koor geeg affaire yu deme noonu te promoteur yu bëri taxawal nañ combat mais ñu ngi ñaan yàlla rek si kanam waa moo gën a am si lañ gën a am yaakaar waaw moo gën a wóor Moussa Ndoye ñëw na boog waaw waaw xoolal li mu téye soo ci loole loo yëg sant sant yàlla tey bés bi lu ma laaj tey lu bari lu bari comme la confirmation da ngay confirmer ñëw pour confirmer tey laay mën a wax tey laay commencé wax. tey wax confirmer. Moussa ñëpp ci xam loolu lay xam. ji tey nga gis sécurité mi ni ñu taxawee mu mel ni jaaraama daal la ñuy wax suñu police nationale saa yu jóg jotee rek ñu jóg andi sécurité bu doyoo doyoo xool nga ni ñu taxawee maanaam di bañ ko yëngu tey ee eh, Garga Ngongu Garga Mbossé Ngong ñu ngi ko Garga Mbossé Jules Baldé Garga Ngongu dem Khalifa Khalifa ziar Garga Mbossé Ngongu toog xanaa dina wax Garga góor ma ndànk kay am ñu ngi Garga tee xool li mu takk cosaanu séréer a ngi ni Taala Njaay xam nga ne kii séréer pire la laa ilaha ee garga mboose xool dàll wi xëddee na ngi ni garga tey ah, na waar xool li mu takk ci tànk yi wala yarkatu xar garga xool butéel ak ndaa yi Taala la cosaan ee garga mboose ñu ngi jox xànce ga wala boo xiis ba xët Taala Njaay man perkal bu weex laa daan waaye percal bu verte laa gis tay waaye gën nañ bu weex ba de eh Talla Ndiaye Lamine. bu weex bi wóorul weex bi wóorul. ah bu ba génn na de. ñu bari nañ ko andi daanu Babacar. waaw bari na ñu talal la ko nga daanu wala ñu mbaaral la ko daanu. waaye bëri indi na ko daan ndax Balla Gaye indi ko bi mu bëri ak Modou Lo dafa daan waaw lambay tegtal la Lamine. tegtal la waaw loolu. waaye gën nañ bu weex ba ñu xool ndax ñooy tolloo. vert blanc mooy couleur fan. l'islam. Babacar dafa takk takk suuf. waaw wax la ko wala waxu la ko. Babacar suuf Babacar loolu kañ la Babacar. loolu lan la bëgg. Babacar da ngaa takk suuf wala. takk suuf mooy lan takk jabar ci kër yëgu ko. non loolu du ko def buur du def loolu tamit. garga day soox. xool ma njur loolu Talla Ndiaye ñu koy dóor. loolooy njur. njura ngongu ñu koy dóor ee eh, Garga Mbossé Cheikh Tidiane Niang Cheikh Tidiane yor butéel yooyu yoraat na beneen ñaq boobu daa soow taala toj na ko ñaareelu ndaa Cheikh Tidiane a yëngal butéel yi di ko sotti Cheikh Tidiane bu ñoojoor taala ndaa yi ñuy naa waa ñoojoor taala waa jonwaar xoolal lii lii rafet na di waaw cëppi cëppi daal mën ngaa cappi cëppeem gara taal ndax mën naa cëppi cëppi xamul dara bulu dara ay gara café touba xam to café rek la xam ah. taala xamul lu café touba café touba rek moom rek la xam eh taala njaay mën ta cëppi cëppi séeri lébu gar ga de cëppi na ba taxaw maa ngi seen xalifa taala jox na ko la mu taala xam nga li ñuy tëggam. loolu de daan naa ko dégg sama président bu mag. Ah, loolu seen na loo bañ bañ ngóor du tere yàlla taw toolu ngóor bu nawet jotee. Babacar am na lu ma seetlu tey ci lamb ji. wax ma ko muy cosaan moo fi feeñ tey. waaw non mbëri cosaan lañu garga mbërum cosaan la Moussa Ndoye mbërum cosaan. cosaan dëggantaan Babacar moo fi feeñ tey. dama la ñaari mbëri cosaan lañu xam nga li bokk ñoo bokk cosaan. tey damaa kontaan Babacar. ma taala boo boo bëggee lamb bëgg cosaan faaw nga kontaan ndax xam nga lii lii aar la taala lii aar yi ci kaw ci suuf xool ni muy def sengoor yi xibla yi lay jël waaye xibla yi waay. xanaa xanaa fas dafay dugg si. waaw du ma la ñàkk lii dañ la koy jox. ah daa mel ne daa mel fas. lii mën naa nekk ay geenu fas lamin wala geenu nag xam nga mbiru séréer mbiru séréer dañuy takk lii xool li mu takk. li ci suuf lii ay ay xoor la. petaaw petaaw maanaam Paul Maurice daan na ko takk. buy fecc ko war a yóbbu Grand Théâtre waaye Garga Mbossé chaque année dafa war a bëre daa war a bëre waaye wax nga dëgg Lamine mbër mu mel ni waxtaane balance waaye Moussa Ndoye mi mu bëreel Babacar balaa bëre day dugg ci géej gi géej ga waaw chaque jour bu ko amee combat balaa ñëw stade dana dugg ca géew ba yenuk léegi dem dugg xaw ma lu muy waxal nag lu muy waxal loolu li ko waral mooy ay lébu lañu eh. waaye Lamine boo demee ba Côte d'Ivoire mami wataa fa ne kuy mami wata mami wata mooy rabu Côte d'Ivoire eh. Abidjan ak yaay ku fa ne ak yaay samay maama fa ne loora loora say maam def nii. ah Baye Dada indi na cosaan Kaka Mbossé lu andi nii. indi na cosaan. eh Talla na waaye. eh, eh foog la séeréer. oh Ba. ma xëy sim naa. xam nga sama xel eh, yi waaye. oh. ci birig la taxaw ci birig la taxaw loo gis taala Babacar dama gis ñoom ñaar ñëpp ci digg commencé seen seen ah waa Garga ci la jaar tous tam yoon te dafa mel ne Moussa Ndoye la foofu Moussa Ndoye fa la taxaw Babacar loolu nu mu demee waa ay tegtal la xam nga la ma la wax diggante lébu ak séréer benn lañu ah doy na waar daa bari ñuy bokk bu ñëwee ci lamb ji te boo leen dee mi micro dëkk yi ñuy faral di tudd boo xoolee ñoo tóoroo ñoo lang maanaam waaye cosaan feeñ na fi de cosaan feeñ na fi de non du mën a ñàkk ñaari mbëri cosaan la ñu taal a ñaay Babacar tey kontaan naa de maa la gën a bég taal waaw waaw lii daa neex ci réew mi xam nga lu may fàttali waxal jamono yéen demee ci àll ba wallaay wax nga la féete droite Lamine moo yor ngeen lu weex li yem li moo féete gauche yor ngeen bu bi kii na ñoom ñaar pied droit pied gauche e yem li ñam la yem li dina ko mën a canaliser canal wër na tànk bañ tuur mu daan dina eh! laa ilaha illallah waaye lii saf na te tardi ahadi lii metti na deuxième combat ba ngongu Cheikhou Diwane diwaan gauche wala à droite Tigo à droite Tigo yor ngeen ma vaccin bi Tigo Cheikhou ñu ngay lewaatoo ñu boot mu bañ yaa ilaha illallah daw na jël ko da daan daan ko waaw seexu diwaan daan na ko daa daw xeex mu wàcc dajeeg moom tibb ko daan ko Talla Ndiaye xool ma tigoo naaw ma tàng na. Ah, ci loo ne. mais lan lan moo tàng Moussa lu tàng yaram ngay waaxu sàng ba tey de. waaye rax tey ñaari ñëw nañu. fukki penc ak ñëw nañu. ñoo dugg ni ma lan la moo tax yëngu. loo yëg fi mu nekk nii. sant yàlla de yàlla ma yàlla may ndam loolu laa yëg. combat bi mën naa gaaw. bu bëggee mu gaaw su bëggee mu yéex. bëri mu ndaw. ku ko jox cëram laa. mbër la may mbër. yàlla ma yàlla taxaw tey. loolu laa ñaan yàlla. aywa combat. aywa troisième combat. Caatu Malaw gauche Bébé Balla droite. arbitre ba soufflé waat na Talla Ndiaye bàyyil noppalu Talla. Talla del nekk direct te bàyyi noppalu Talla ah Talla mbaa kii bu takkee ñaar dina dem. bu takkee ñetteel instant kay mi ngi ci ñaareel. amul ñaar kii kay ñemeñ te takk ñaar Talla yorut ñaar lamin. a la ko def ah daa def takku suuf wa eh xeex na moom. xeex balla ma 1000 francs yi léegi yaa yor ma ko yi nga kay laa soxla. Pape Ndiaye weer wi lay dem mu xëy suba du yor xaalis. eh na jël ko Balla daan na ko waaw eh Talamin Balla Gaye de bébé Balla daan na waaye jëli ba mu ko daan rafet waaye la mu dafa xam na ni ñuy daane it nag waaw wàcc rek tibb ko tuur ko waaye yëkkati nañ loxo ba moog Boy Diop ak loo soot soox waaye soox garga soox na Moussa Ndoye soox na boor Garga Soox Moussa Ndoye Soox dañoo saf mbër ñoom ñaar. Soox saf ci manga de. waaw waaw wala Mouhamed Ndiaye Robert. waaw dégg naa moo daan Soox. da daan Soox. yàlla ko yàlla yokk wér. Baye Ablaye ak Mamadi Ndiaye. ak Mbagnick. daan na séerans fils de Goro. fils de Goro am na avertissement Matar jox na ko avertissement. songule songule ko daan na ko wala daanoogul wër na ko ndombo. eh fils de Goro mu ngay door ma gànna. Gana daanul Gana daanul Gana da ngay daanu Gana da daanu ah oui daan na ko waaw wuy tële. Garga ne bañ a wax tey la moo tax mu bañ a wax. ah ay décision boppam la. tey daal du wax. ah bu ñu daanee incha allah dinañ wax. di ngeen daan. bu sooba yàlla. incha allah nu ngeen di daan. lu ñu yàlla lu ndam la ñëwee rek ñu daane noonu. ndam moom jot a xew. góor lu tax du ngeen wax. non ñu wax. ah garga mu mag ne na du wax di. waaw dama ne ci ah dafa ne ci wàccaay rek waaw. gis ngeen Moussa Ndoye. waaw gis nañ ko. lu ngeen gis ci moom. waaw mbër comme ni nga gisee mbër yëpp. waaw loolu lañ gisoon gisuñ ci moom lan. combat bi lu koy jeexal. ah bëre rek bëre xeex bëre moom xeex il faut xeex waaw lamb ñoom xeex da cee am moom waaw. xel dal na ci garga wala. waaw xel dal na ci grand frère waaw. tey gaawal day. non lépp lu mu yoon nañu yàlla may ndam rek loolu lañ soxla ñun <laughs> incha Garga. Talla Ndiaye kii daa fas kanamam. Talla. te yàlla bu wér gis nga Moussa Ndoye gis nga Garga Mbossé actuellement nii loo jàngat ci ñaari mbër yi. waaw combat bu doy waar. ndax ñoom ñaar ki nga xam ne mooy Garga Mbossé si moom laay jëkkee lamb ji lambam la tey waaw parce que lamb ji tey jii victoire moo ko arrangé waaw Garga Mbossé victoire moo ko arrangé parce que bu daanoo tey du baax si moom ñaanalu ma ko ko waaye dama lay wax rek li nga xam ne mooy logique làmb tey victoire moo ko arrangé ki nga xam ne mooy Moussa Ndoye bu daanoo tey du ko yàqal dara mais bu amee victoire yi tamit am na fu bari fu soree sori fu mu koy yóbbu. kon daal ndam li Moussa moom dina ko yokk bu baax. dina ko yokk bu baax a baax dina am fu mu koy yóbbu fu sore sori waaw. waaye ki nga xam ne mooy Garga Mbossé bu amee défaite tey du baax si moom bu amee victoire nag dina ko delloo fa mu nekkoon jërëjëf. Écurie Fass ñu ngi lay jàll li ñu bokk suñu yaay jot di ñaan yàlla yërëm ko xare ko aljana père. amiin amiin amiin yàlla yàlla dégg ñaan euh, maa ngi rafetlu nag njaal mi euh, di leen sama teewaay tey ci làmb ji mooy mbir mi dama ko seq ak lu làmb yëpp moom am ñu ñëwuloo ñoo xam ne il faut comme dañuy bëgg a dugg ci koor. ma naa ñëw te ñi nga xam ne bëggoon nañu excité ñëwuñu ñu gis ma rek njaal mi wàcc leen waaye jot naa ñaan yëpp. combat bi noo ko jàngate Garga Moussa Ndoye. waaw ni ma ko jàngate mooy Garga bu fekkee ne dayoom noonu la dooleem toll bu jàppee rek bëri bi war naa jeex mais ne kay da kay day bëram jom ba pare di mbër muy fitti te li muy bëree ñaare kenn du ko xam am na xadar bëgg na li muy def te du kaf mais Garga dama daal li nga xam ne moom ah, macha allah jëmmam matale na ko bu fekkee ne dooleem jooju mi ngi ci moom su jàppee lamb ji war naa sotti waaw. kon daal mën nañoo xaat combat bu gaaw. waaw war na jamono nekk parce que xam ne moom ku njëkk a déclenché sa morom sa morom dina la jël mu daanu mën na ci waaw mën na ci am parce que bu ñoom ñaar ku ci nekk ne xaaral ma sama morom teel a bu kenn dóor bu kenn fayal kaaw ma naam même bu fekkee ne mbir mi wàcce bu la fekkee dara jërëjëf. eh ñu ngay loolu daa sori wala dañ lay bëree aatu daan na Fils de Falaye waaye Fils de Falaye mi lu ko dal mbërëm Jules Baldé mi lu ko ma Jules yow Talla Ndiaye xoolal Jules ay waay mbërëm Jules ma daan nañ mbërëm Jules Baldé ma mbërëm Jules Baldé ma Maodo Faye ngi moo dugal tey Garga Mbossé Maodo bu Gaye Ndiaye dañ ñaan yàlla mu daan ba pare mu door a wax ak yow Garga ko tëggal tey noo Garga cosaan la indi cosaan moom ah, la indi da saar roog a def nga o fañin fañ fañ fañ te wàccaa ko fañin fañ fañ fañ loo tëgal Moussa Ndoye ak tuuti nan la. waaw Moussa Ndoye yàgg naa ko tëgal lii ñu yàgg a ànd ma ànd ak Baye Fadi ne fii nag di xaar rek noo tudd man maa ngi tudd Modou Ndione dëkk Yaraax waaw maa ngi Moussa moom depuis bañ ci xale ba léegi. dama dama dégg nga tëgal ko. Euh, loo xam-xam jinne noo ko tëggati sa njaajaan jinne waaw dama ko tëggal njaajaan jinne dina xam sa kër ta xamoo jinne ñu ne bra dal gi dat bra dal gi dal gi dal xam sa kër ta xamoo jinne Moussa Aba féete gauche wala boog Aba doomu jàmbur a féete gauche doomu jàmbaar waaw Babacar ay bëre Babacar ay reporté. Babacar di reporté Babacar di ak doomu jàmbaar. doomu jàmbur la. ah man mi doomi jàmbur laa di. waay doomi jàmbur yaa yey tudde sa waxal. lëg bu lekk alam na ko gërëmee cooy. waaw loolu Lamine soo ko déggee ndeysaan bu la defalaan dara ñu bëgg nga ne ko jërëjëf ñu ne la lëg bu lekk alam na ko gërëmee cooy waaye boo ko waxaan mag da la ciy tegal ne la bu sañoon lëg du ca jot ndax li tax mooy di koo rëcc daa yëg ca alom ngay lekk di lekk doom bëri ci ko wadd bu waddee nag mënu ci dara faw lëg for ko. waaw lëg for ko mënu ci dara. loolu daanaka muy ci mbartal rek. waaw ba max mu dem ñàkk ba max mu dem. ñaari mbër yaa am Lamine moo tax àddina lu nit yéene ko ko waaw boo yéene ñëpp jàmm am jàmm waaye boo yéene jàmm doomu aadama safaan. Eh, avant ko xam buun la dëgg. ñaari mbër yaa nga ca waaye lamb ji jax na waay Lamine lamb ja jax na dama a bëre waay safa bëre Lamine sama yaram a koy laaj nga ni mana rakkaaju naa. waaye rakkaaju nga kay. ee eh, eh, rakkaaju naa. Babacar rakkaaju. rakkaaju leen. Moussa Garga Mbossé rakkaaju naa. Lam Ndiaye rakkaaju naa. Talla Ndiaye rakkaaju naa. Papa Lamb ja rakkaaju. Père la yaa ko wax lamb ju rakkaaju mooy lan. mooy lamb ju jax. lamb ji daa ni la kaaju na di yëngu ñëpp a rakkaaju kaaju na gargar rakkaaju ku ci ne defe ne ndam sa poos reporter yi sax rakkaaju waaye daal li ma jaaxal mooy ñaari damay dugg benn ay génn cey père ndax ñaari baat yi mën ñàkk félicitation ak di courage seexal naa leen yéen ñaar waay yàgg fi waay yaa wóor eh da koy daan wala taala njaay waxi mag waay rakkaaju leen rakkaaju faraab xoolal lii Lamine yow jëlal ma lii Talla Ndiaye xoolal eh way Garga waay waaw waay Garga Mbossé eh. waay kal Garga Mbossé daan na ko daje waa lii lu ko dal. mangum tey. mais sa ñoo la tuddul bëri. non moom la ñu dem mangum kese. Ah, ñaar kese. sax dañoo ngeen yëgalee sànni. nañ si rek. Eh, eh, nañ ñëpp dem ñu ñaar kese. moo ñu wan ginnaaw mar la ngeen jàkkaar lool. dawroo décision médicale Tapha Tine gañe na dafa gaañu médecin bee def loolu Talla Njambaan à droite Belende à gauche Belende Njambaan Njambaan waa doomu buuse ca États-Unis Njambaan eh waay ndaw Njambaan ba duñ nga daanu Njambaan dinañ la daan <laughs> eh waay waay waay yéen waay waay njambaan njambaan a neex waay njambaan njambaan a neex waay njambaan xoolal njambaan lami njambaan a saf suukar waay njambaan a saf suukar eh njambaan a neex njambaan mi amul suukar mu nay buuse ga mbooseeg ruusam waa Talla Ndiaye lii lan la lii ndaa la wala lan ndaa. ngi nii. ndaa laa ngi. ndaa ngi nii. bu la ndox dañ ko naan. ak ay sedd lii. ak mën a day sedd ba raw frigo. toj na nen ba. yàqaale omelette. yàq omelette. yàq mayonnaise. ee eh, gàkku de wala boog ak neex day neex bay bëgg a dee. Bébé Birahim léegi Yoff la ne. Boy ñàgg dafa leela ko mujj daan. moo tëjoon saison bi ko jël bu ko tëggoon jéey seen. Babacar a ëpp. waaye moo taxit sama put ga aju na. bëgg lamb Babacar. waaw waa li lambaloog la. lamb rek la bëgg. ñoom ñëpp ay déglu di. laay laay lamb sunu cosaan la ñëpp a ko bëgg. waaye waxante nañu waxante yu méttee métt. ak kii da ragaluma. daw na jël ko jël na ko bas daan na ko. booy ñàkk daan na ko booy ñàkk daan na ko de wala waa ñàkk daanu la Birahim Birahim daanu nga eh armi ne na na. ci suma xol laa ko cibee promoteur yi ay gor pire a ngi nii ay ndaanaan a ngi ay acteurs de développement ñu ngi nii lamb fu mu yegg tey ñii ñoo ko fa yeggal. jàkkaarloo caméra lamb fu mu yegg tey ñii ñoo ko fa yeggal gis nga lamb ji li muy mel yëpp. ñoo taxawal lamb ji ñoo organiser lamb ji ñoo indi pare ñoo def lépp kon gàcce gàllaama à l' association des promoteurs ku lim juum mënuma bàyyi kenn suñu mag si di jaxate mu ngi ci kaw fële wàccul ah excellent maa ngi monsieur le président maa ngi lay gërëm di la sant te boo gisee tey jii lii nga xam ne def nañ ko nii man dama cee kontaan maa ngi koy wax yee doomu yaraax mu nga ca butéel ya xool butéeli Talla Ndiaye ak brique bi mu teg cey lamb di sotte ko rek waaye boo ko xoolee Talla Ndiaye nga xam ne kii fayul entraînement Talla Ndiaye. waaw ñoom ñaar ñëpp Babacar liggéey nañu. non ñaari mbër yu ne ci état ki daanu laa yërëm. ba pare ñaari mbër yëpp dañoo liggéey bu baax a baax. Sawru Fall ngoog ma naan Saba mu ngay wax ak ñoom. Babacar dañoo rakkaaju. dañoo rakkaaju ay mbëri cosaan lañu. waaw dañoo rakkaaju tey. waaye rakkaajoo neex. bis bu arbitre doxee seen génne seen diggante. nga gis tooy waa. nga gis lu garaaw. Moussa Ndoye ngi fii la mujj bu rek Lac waaw mais man bee ma ci jaaxal waa lii digtal tañ la koy digalal Talla Ndiaye. ay booy sangu bul taxaw ci suuf. Babacar gis naa fi gàllaaj bu ne. lu doy doy war. Babacar tey gis naa fi lu ne Babacar. mooy lamb Talla. Babacar gis naa cosaan. nuyu naa ñëpp Talla. mu ngay wër ak leket ga. ci géew bi moog Moussa Ndoye am na lu ko Moussa Ndoye tàllal. garga ngay samp ban ca tànk ya. laa ilaha illallah. gis tey ci làmb loo gisati Talla Ndiaye damaa gis ñoom ñaan ñëpp ci digg ci digg bi lañ tuusee Babacar ñoom ci digg bi lañ tuusee ba pare xoolal sotte koob fii nu nekk nii fi la ndënd yi nekk fi ñoom ñaar te Garga Mbossé su mu mu nga droite waaye fii la teg butéelam yi mu dernier butéel yi muy def ci géew bi mu ngay dem yaakaaroon ne dañoo bokk ay tegtal non du ci mën a ah, na waar de dama la ne ay mbëri gox la ay mbëri cosaan la ah, ba pare Serigne Sélène ngem ah, loolu moo waral lii ndax Garga Mbossé ku ne xam ne séeréer la te Moussa Ndoye fu mu waxee ne Sowal ne Baasul ne Baasaar te dëkk yooyu ay dëkk cosaan la xool ko Moussa Ndoye ay Talla Ndiaye lamba ngi. kon bu ma la déggee dañoo bokk fa ñu rootee. Ah fi ñu rootee soron dewut. moo tax gis Moussa. koo mu romb ko dóor na ko tànk Garga talal sengoor ya laa ilaaha Garga ñëw. rouge blanc noir. Ah, maa ngi noppi. lees waxul. maa ngi noppi. lees waxul. maa ngi noppi. taala gis naa bale. maa ngi noppi. gis naa bale sëkk taala. Babacar noppi naa Babacar. yaa nga noppil taala. eh taala Ndiaye. waa lii la. eh waaye kii doy na waara. kii doy waar la Moussa Ndoye mi. rëy gal na géej. am na lu muy joxañ am na lu muy joxañante ak moom. kaay taala Ndiaye. bul dugg si rek rek. laa ilaaha illallah bale na tànk ya Garga bale na tànk ya bale na sëkk Talla Ndiaye xanaa lébu am na bale sëkk. Babacar da nga maa yàq léegi ci làmb. ndax am na bale sëkk. Babacar da nga maa yàq léegi ci làmb. ma ne lébu ndooy ndax am na bale sëkk. am na bale sëkk Babacar. même Taneg am na bale sëkk. même Taneg am na bale sëkk. waay bale sëkk heure bu ñu moom la ñuy balee. Eh, kaay. géew bi jax. Cheikh Tidiane Niang tey Garga la àndal ñoo bokk écrit Talla Ndiaye tarafa ba ngoomu Sidi Jaxate tee mooy magi promoteur yi tey fii Pape Abdou Fall tëgg combat mais trophée bi loo mën a rafet Talla Ndiaye lebu ndooy man gis naa fi ak bale gis naa fi ab layu gis naa fi perkal Moussa Ndoye daa teg leen tey victoire Lamine gëj nañ koo daan Moussa Ndoye wallaay gëj naa daanu ne ci waa ca la mujj daan ne ci dynamique de victoire bu doy waar Malick Niang bu Yoff ko mujj daan waaye Garga Mbossé boo xoolee dafa nekkoon ci lancé Boy Niang bu dégool dogale ko uh-huh. mu def année balance ren mu takkaat ngeen mu di bëree mu ngay dagg ca drapeau ba waaye day def ci ngembali taala taala day def ci ngembali yaay Talla Ndiaye bëgg nañu la kuy siifir ñoom Yankuba Sané Ousmane Diop hymne ba jóg na de yee hymne ba daanu na Talla fu ñuy taxaw la ñuy xëccoo léegi terrasse la ndi atte Talla Ndiaye xanaa dañ koy pile ah des koy pile Talla dead wala fils ci biir arbitre Babacar loo appoo. Babacar a ngi ci biir di arbitré. ma appoo fils. ah man ko xaw ma fo man da xanaa ma jël teet. man fils la appoo Babacar. arbitre dina ko fils teet. na ko ma Diouf arbitre baa ngi waaj a soufflé maître Pape baa ngi waaj a soufflé. arbitre soufflé garga droite eh. garga go garga droite. Moussa Ndoye gauche. la ilaha illallah. arbitre jox na leen avertissement ndax dañoo li ngaan passivité taxaw di lewaatoo te defu ngeen dara xeexagu ngeen bëreegu ngeen ñoo nga ca de Moussa daa bëgg a dem de arbitre ba soufflé tina ñëw leen jëlaat avertissement waaw dañ koy jël jox leen joxañ leen ku nekk ñaar Garga ñaar bëre leen Talla Ndiaye waxal ak ñii ñu bëree. dañoo war a bëri de. bëre leen Papa Ndiaye. ah war nañu bëre de. nañu bëre waat. Ah, waxuñu woon lii Babacar. waxuñu woon ni lii. waxuñu woon lii Babacar. defante a defante. ani Balla Gaye de. ay bu doon moom la yaakaar nañ lamb ji jeex na. ani Ama Baldé. bu doon moom la lamb ji jeex na. ana Modou Xarañ Lo. bu doon moom la lamb ji jeex. et eh, ana Ama Sène. ñoom da dañuy songu bëre ana Boy Niang daw na jël ko Moussa Ndoye yooru na le Moussa da ngaa yooru Moussa da ngaa yooru Garga tëru ko génne ko sol ko eh Moussa Ndoye lu xew lu xew am na lu xew de mba Garga daan na ko de Garga daan daanu na de sant rek maa daan daan day daan naa ko sant yàlla ay gis nga tey sañu mi Mamar Diop fees na neex na far na fuur na Moussa Ndoye Garga ku si nekk li la waroon def nga ko bëri nañu bëri boo xam ne nii bëri calcul la bëri jàngat la bëri xool li ngay def la yàlla def na nag si biir calcul boobu Moussa Ndoye xaar bi yàgg na jël ay avertissement mu taw jëli Garga Mbossé ñu jaxasoo mu koy mbot Garga jiital ko boo xoolee Moussa dafa jiitu loolu moo di jël bi waaye nag nangu na ko nee na daan nañ ko. nangu na ko loolu ma sport parce que lancé bi mu nekkoon baax na Moussa Ndoye géej naa daanu bëree daanu da cee bokk kon félicitation Garga Mbossé di encouragement à Moussa kon daa mel ni tey daal parcelle bu fekkonte ne ndam tëne leen fan yi wala ci saison bi Garga Mbossé dugal na ko fa mais Leewtoo TV Babacar la Talla Ndiaye la yee Sénégal waaye Talla réew mee neex Garga kan garga mbosa ama neex daa neex. garga ama neex garga ama neex. combat ko. Sa la parce que lamb ji génération yi war nañu mën a bëre. waaw ama neex xale lébu la. Moussa Ndoye mii xale lébu la. te dañoo dugg parcelle gis fa naqar war nañuy faj jooy yooyu. vraiment lamb ubbeeku na. xale yi buñ bañante ay nawle lañu. nanu bëre boo xoolee tey. bu ama neex cuppeeloo si. booy yi daal war nañoo bàyyi xeex bi ñu nekke ci lamb ji. bëre sport la buñ la daanee muñal. boo daanoo ñibbil ndànk jàmm na ñooy réew mi jàmm la laaj ca jàmm ci la lépp xajkat mais taala maa xam nga ne kontaan naa lébu lébu Babacar léewtoo la maa nga léewtoo taala